dali na jàmm ñu ànd xëy ñu xëyandoo yéen kaay gi di réew mi ko di jeex xëy di ñu xibaar naan ñu Cheikh Hadjibou Soumaré mi fi xëyoon laaj ay laaj njiitu réew mi ci lu jëm ci audience bi nga xam ne séqoon na ko ak Marine Le Pen ndax daf ko jox ab xaalis loole taxoon nañu daal di koy teg loxo waaye moom Cheikh Hadjibou Soumaré ni ki démb daan nañu koy libéré ab contrôle judiciaire nee na ñu ko bul waxati ci dossier bi gi di libération nee na Cheikh Hadjibou Soumaré xam na boppam ndax ni ki démb taskatu xabaar yi laaj nañu ko ci dossier bi waaye dafa lànk ba tëdd sa naaj waay yéen kaay gi di yàlla neexul ba neexula waaye nag ay faucon ñoo ko wër ca palais ñoo ko jàpp otage ci ni nga xam ne moom la nguur gi doxee ñu wër Macky Sall di ay faucon di ay yàqkat gi jaxasekat dañ siy dugal seen loxo bu baax a baax ndax mbiri Cheikh Hadji Boussoumari mi mënoon nañu ko lijjanti ci loo xam ne ak yeewu tegu mat sëkk lay doon te nag ay jàppake arrestation ndax mënu see woon a ñàkk yéen kay gi di réew mi ko di jeexi duñu xibaar naan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall wax na ak njiitu réew Tunisie ci lu jëm ci situation bi nga xam ne moo fa am li am ci yéen kay gi di l'observateur mooy ci diwaanu Tunisie lu toll ci téeméer ak juróom-ñaar fukki ci doomu réewum Sénégal yoo xam ne ñoom bëgg nañu ñibbisi si réew mi réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu ca diwaanu Tivaouane am na benn responsable politique bu Pastef boo xam ne dañu ko faa teg loxo yéene kaay gi di source ak xëy duñu xibaar naan ñu ki fi nekkoon ay jamono maire bu Kër Massar di Moustapha Mbeng tudd nañu ko ci lu jëm ci wàllum trafic faux document moom Moustapha Mbeng nee na ki nga xam ne moo yor communication ma moom lañu teg loxo ndax ay gars yi ñoo sàcc ci téléphone jox ko ki communication ma mu daal leen di li nga xam ne mooy données yi effacer leen ko loolee moo tax ñu teg loxo ki yor communication ma ma waaye ni ki yor communication ma ginnaaw bi ko gendarme yi jàppee dañoo dem ca këram ba ñu fa demee fekk nañu fa ay document administratif maanaam ay cachet ak seen ñoom yéen kaay gi délibération nee na mbir mi maa leen di wax nan la demee brigade de recherche ñoom seen bopp ñoo daal di teg loxo a mafia bu doy waar boo xam ne moo amoon ca diwaanu Kër Massar Nord ndax ki nga xam ne mooy maire ba di Adama Sarr moom moo porte plainte ndax dafa gis ne ay document administratif yoo xam ne moom signé wu ko dañu koy antidaté ba pare di ko ko andil loole moo ko mujjoon a jaaxal moom Adama Sarr mu daal di porte plainte journal bi nee na ñi nga xam ne ñooy waa gendarmerie ñoom ñoo infiltré mafia bi ginnaaw bi ñu infiltré mafia bi ci la ñuy teg loxo ku ñuy wax Cheikh Tidiane Cissé gendarme yi dañu ko nax njaay cekke ko ba leen doon jéem a jaay maanaam lu jëm ci wàllum këyitu kër journal bi nee na ci la tudd ku ñu wax Abdoulaye Jéeri Sow Abdoulaye Jéeri Sow moomee nag ku jege Moustapha Mbeng mi fi nekkoon ay jamono maire bu Kër ma la yéene kaay gi du suur saa xëy di ñu xibaar naa ñu sëtu borom daaru bii di Serigne Djili Mbacké nekk conseiller à la présidence de la na ba mara détaillé ndax nee na Daaru Muxti da doon amal màggal goo xam xam ne màggal gu rëy la gu ñu bàyyi xel ci yoonu Mouride Daaru Musti nekk ci région de Louga région de Louga am na ñeenti ministre te ñeenti ministre yooyu amul kenn koo xam ne teg na tànkam ci màggal gi loole nag Serigne Djili Mbacke di ko ñaawlu ba fa ñaawlu yema ndax nee na Aly Ngouille Ndiaye ci région de Louga la dëkk Daaru Musti nekk ci Louga doon amuluk màggal tegu fa tànkama Samba Ndiobène Ka ministre la dëkk ci Louga Daaru Musti bokk ci Louga te tegu fa tànkama moom Serigne Djili Mbacke nee na Aly Sele Diop la dëkk ci région de Louga Daaru Musti bokk ci Louga doon amuluk màggal te tegu fa tànkama Serigne Jili Mbàkke nee na Moustapha Diop ministre la dëkk ci Daaru Musti nekk ci région de Louga doon amulug màggal tegu fa tànkam waaye nag nee na rawatina Samba Ka mi xam ne moom lañ dénk lépp loo xam ne jëm na ci wàllum social moom sëriñ bi ci journal bi du Source A nee na xam ne ñooy bi sax ñëw nañu ci màggalug Daaru Musti gi ku ci mel ni Barthélémy Dias ak Ousmane Sonko ak ñeneen ak ñeneen waaye ñi xam ne ay ministre la ñeenti ginnaaw colloque international bi nga xam ne doon nañu ko amala ñoom nag woo nañ ñi nga xam ne ñuy jiite ci dindu Afrique ngir nag ñu fexe ba indépendance am ci wàllum justice bi maanaam justice boo xam ne dafay tëddee njaaxaanaay te ñu bàyyi jël justice bi di ko jëfandikoo ngir nag lu jëm ci wàllum politique moom Alioune Tine ak ñi mu àndal nee na ñu nañu fexe ba ñuy jiite ci dindu Afrique bàyyi lépp lu jëm ci wàllum fraude ci constitution bi ak lu soxal wàllum élection yéene kaay gi di ñu fekkaat fa Alioune Tine moo ngi woo opposition bi ak pouvoir bi ngir nag ñu ànd kuk nag li mu gis ci réew mi dafa mel ni nekk fi opposition kaay di direct news xëy di ñu xibaar ñu li ñu jaaxal mi ñi nga xam ne ñooy waa Benno Bokk Yaakaar dafa mel ni Ousmane Sonko moo leen di diri leen di orienté lu Ousmane wax ko mu def ñu def ko ginnaaw mitin bu rëy bi amuloon ca diwaanu Kër ay fan lañ si tekk Benno Bokk Yaakaar ñoom tam ñu ñu ne déetuwaay Ousmane Sonko na day amal manifestation ca diwaanu Mbàkke Benno Bokk Yaakaar na ñoom tam dañuy amal manifestation ca diwaanu Mbàkke journal bi di direct news nee na tax ñi nga xam ne ñooy Benno Bokk Yaakaar ñoom dañuy xaar ba Ousmane Sonko teg ay jéego ñu koy jéem jéema toppandoo ndax jamono ji mënuñoo sampaab laaj nee na agenda bu Benno Bokk Yaakaar Ousmane Sonko moo ko yor yéen kaay gi nee na rassemblement fukki fan ak ñeent ci weeru mars ak mars fukki fan ak juróom ci weeru mars bi nga xam ne coalition yi waaskan yu bëgg nañu ko amal ban taxawaay la ci Benno Bokk Yaakaar di amee loolee ab laaj la naam laaj dañ koy tere léegi ci réew mi yéen kaay gi di Walf Fadjri xëy diñu xibaar naan ñu jàpp yaa ngi mel ni tulleeg màlle ak nag lu ñi nga xam ne ay taskatu xabaar lañu yu ñu jàppee ne dañoo ànd ak Sonko journal na en tout cas gi ñoom fépp la ñu gis ne dañu faa menacé woo yéen kaay gii di Le Quotidien yor yor nee na régime bii nga xam ne moo fi nekk di traqué ay journaliste yu libre loola nag lu ñaaw la xoolal mbiri Pam Ndiaye ak mbiri Pape Alé Niang journal bi nee na liberté de presse ji sonn na lool ci réew di Sénégal liberté de presse sonn na loola waaye tamit liberté d'expression sonn na lool ci réew di Sénégal Le Quotidien yor yor mooy wax yéen kaay gi di Sud Quotidien nee li nga xam ne moo ñu jaaxal ci réew mi président Macky Sall dafay ko dafay jafe lool fisc financier nee woon nañu danañu ko teg ci réew mi ngir na xeex lépp xam ne jëm na ci wàllum luubal alalu askan wi ba léegi nii France daal di xëddee na lu jëm ci wàllum amnistie ba léegi nii France daal di xëddee lu jëm ci wàllum projet de nga xam ne waxoon nañu ko accès à l'information ba léegi mara détail yi journal bi di enquête xëy diñu xibaar nan ñu lu jëm ci wàllum 98 milliards yi nga xam ne Bougane Gueye man ko noonu wax ministre bi ñu na défaite bi nga xam ne am na ko ban adversaire lañ ko war a jox moom rëg-rëg